yonent bi alayhi salaatu di sayidil xalq sallallahu alayhi mi nga xam ne moo tax sunu boroom sàkk lépp moom mi nga xam ne mooy xejjub sunu boroom di soppeem di xaritam moom mi nga xam ne lépp luy dox rekk ci biir leeru alayhi salaatu wasalaam googu la bàyyi ko di koo xam ne yàlla ci boppam moo ko gënal ba noppi moo ko jiital ñu koy wax xaatimu nabiyin waaye imaamul mursalin mujj ci ñi yàlla yónni ci cent vingt quatre mille waaye mooy njiit nag ndax xam ngeen ne ak nubu waam jëkk ñuy tën sayduna aadam wala bi ñu tënee sayduna aadam ci ban te amagul ak roox la ak nubu nekkoon nubuwatuhu xablal baraya xadin jalat lahu sabqa xiinal jadd fi tiin yuxzanu kon day mel ni sayduna adam ba nga xamee ne ni suñu borom tën na ko fekk na nubuwak Mustafa sallallahu alayhi wa sallam jiitu di koo xam ne it sunu borom daf ko tudd ci alquran ci ab dayoom nga xam ne ñi mu doon yónni comme ci mas waxal dafay jaar ci sa tur yaa Adam yaa Nuux yaa Ibrahim yaa Muusa waaye moom bu koy woo daf koy moo ci yaa nabi yaa rasul yaa ayyuhal muzammil yaa ayyuhal mudassir taaha yaa siin yooyu yëpp ngir waggar ko ak jox ko wàccuwaayam ba sunu boroom sax bu bëggee bi mu bëggee wax nit ñi ngir fi ñu jaar ngir moom mu bëgg leen te jëggal leen yonent bi alayhi salaatu salaam la ko wax na ko waxal nit ñi ne buñ bëggee ma bëgg leen nañ la topp yow xul in kuntum tuhibuuna allah fattabiuni yuhbibkum allah wa yaxfiru lakum yow waxal nit ñi rek buñ bëggee ma bëgg leen man borom bi subhanahu wa taala yow nañ la topp buñ la toppee rek ma bëgg leen sunu borom jël ak toppam dendale koog topp yonent bi alayhi salaam nga xam ne boo toppee yàlla te jaaree woo ko ci yonent bi alayhi salaam suñu borom du ko nangu moo tax wa faqad ataa allah nga xam ne atiiwu llaha wa atiiwu rasul topp leen yàlla topp yonenteem ku topp yonente bi topp na yàlla muy koo xam ne sayduna aadama mi nga xam ne mooy jëkk ci mbindeef yi doomu aadama yii topp ci ginnaawam di leen tudde ay doomi aadama sayduna aadama moom nga xam ne bi ko suñu boroom tënee sàkk ko digle woon malaayika yi ne nañ nañ sujjóot mm-hmm. malaaka yi sujjóot te iblis gàntaloon bañ a sujjóot te suñ boroom alag ko woon ko ca ñàkk sujjóotam googa ndax ba mu ko laajee li ma lam tasjud istakbartam kunta minal aaliin la ma ko tontu wa naa xayrun minhu kon ndeke sujjóot boobu suñ boroom doon digle ñu sujjóotal ko aadam du jëmmi sayduna aadam waaye li aj li li li li lan li aj li saydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngir jëmmi yonent bi alayhi salatu salaam xam ne ci dara jaam moom yonent bi alayhi salatu salaam hmm. ci la yàlla digal malaaka yi ñu sujjóotal sayduna Adam nga xam ne sujjóot bi ñu doon sujjóotal sayduna Adam eh. li ajlihi sajadat amlaaku mursilihi jëmmi sayduna Muhammad leer gi ne ci moom sayduna Adam moo tax malaaka yi sujjóotal sayduna Adam bi mu nekkee ci biir àjjana it te wéet tey xalam te suñ boroom jël ci ak faaram bind ci xawaa eh. bi mu yeewoo ci ay nelaw yam ci xawaa mm-hmm. bëgg koo laal suñu borom dana ko araab na ci nga teg ko loxo mm-hmm. faaw nga can ko ba mu laajee suñu borom lu canam dana ko julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne kon allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim la ñu ko cane yonenti boobu nag moom sallallahu alayhi wa mi tax yàlla suñu borom baal wala nungu jéggulu ña jiitu woon ci ay yonent suñu borom tànn ko def ko mu gënal ko ci lépp gën ko gën koo màggal ci lépp nga xam ne jëmmi yonent bi mu mujj a wàcce jël diine ji gën jox ko muy lislaam jël téere bi gën jox ko muy alquran ku fi bàyyi li mu indi woon hmm. yàlla duutu reconnaître sa mel ni mbir nga xam ne lislaam boo jëloon fi ne beneen diine ju doonu lislaam suñu borom du ko nangu ndax wa man yabtaxi gayra islaami diinan hmm. falan yuqbala minhu fil axirati minal xaasiriin yonent bi alayhi salaatu wa moom nga xam ne ci bëgg ko hmm. ak màgg gi suñu borom màggal dafa am lu ci Sëñ Tuubaa wax lu gàtt loo xam ne huwa nabiyu wa rasul wal xalil mm-hmm. huwa al wal imaamu wa dalil loolu loolu loolu na rek mm-hmm. mooy xaritu yàlla mooy soppeeb yàlla mm-hmm. ñi yàlla yónni bari na waaye waxu rasul waaye yëmul ci loola it moom ci boppam mooy gidd bi nga xam ne di dalil bi nga xam ne borom bee waxoon ci alxuraan bu njëkk ne boo leen ko toppee da ngeen jub moom alayhi salaatu salaam mi yonent bi mooy mooy mooy dalil mooy xutwa te moom la suñu boroom wax ci alxuraan ci beneen façon wax ne wa yéen way jaam ñi nee na ci yonent bi alayhi salaam mooy seen royteef walakum fi rasulillahi uswatun xasana kon ndaka yonent bi la yàlla santaane ngir nit ñi roy ci moom bu ñu demee ëllëg àjjana yit kii jëkk a fëgg bunti àjjana mooy yonent bi alayhi salaam awwalu man yaqra xabaabal janna ahmaduna al muxtaar muhyisunna nga xam ni sun borom fonk gi ko fonk moo tax mu jël turam taf ko ci turu yoon taf turu yu nen boo ne laa ilaha illallah te waxoo muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam sa pas-pas du dëgër te yàlla mooy buur waaye faaw nga ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bu nit ki di nodd nga gis fi ñu yàlla dugal alayhi salatu wasalam boo ne allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah kon suñu borom dafa fonk yonent bi alayhi salaatu salaam ba tey dafa jël turam tudd ko waaye boo demoon tey ci asamaan yi juróom-ñaar eh. da ngay fekk turu yonent bi alayhi salaatu salaam boo demee ci àjjana fekk ko eh. wala si faaqa siwa min al baraya bi huda hatta bada kat bu sama fi arsikal machim boo demee ci aras da nga fay fekk turu yonent bi alayhi salaatu salaam muhammadu rasulullah kon kooku dayoo bi ko suñu borom jox eh. kenn mësul am dayoo bu toll ni yonent bi alayhi salaatu te nga xam ne min nuurihi kulla nuurin saatihun bi sana nuuru nujum wa nuuru shamsi jant bi xoolal ni mu leere weer xoolal ni mu leere seen leeraay boobu li muy leer leer mi ngi bàyyi ci biir leeruk sallallahu alayhi wa loolu dana la doy misaal ci bis bi muy feeñ jamono moom alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mi ngi feeñee ci umul xura di makkatal mukarama distance bi mu am nga xam ne ca xaysar nga xam ne am na ci ñoo xam ne bi ñu nettali Sëñ Tuubaa di wax ci tatay Kisra jooju ak ña newoon ca yeneen béréb yi téewul bi muy feeñ xay yi ji nga xam ne leeru Moustapha sallallahu alayhi wasallam wane na ko ñi soree woon Makka lu toll ci cinq cent wala quatre cent et quelques kilomètres ñi ngi jàkkaarloog léegi Makkatal Mukarrama ndax leeru yonente bi alayhi salaatu salaam moom nga xam ne dafa fenq leeram gu màgg goo nga xam ne bi muy ñëw adduna bépp yëg nañ ne xajjub suñu borom mooy wàcc tey mooy yonent bi alayhi mi nga xam ne mboolem looy xool ci alxuraan li ko yàlla jox nga xam ne alam nashrah laka sadrak wa wadanaan ka wisrak alladi anqada zahrak wa rafaana laka dikrak demal ci wadduha wa layli isaa sajaa maa maa waddaaka rabbuka wa maa xala wala al axiratu xayrun laka min al uula wala sawfa yuatika rabbuka fa tarda xool ko sa yàlla sa borom bayiwu la sa borom méréwu la sa borom du la fàtte danaa la jox ba nga gërëm ba nga sant man yàlla demal ci inna ataynaaka al kawsar lu ci nekk yàlla ngëneel yi gën a màgg mu jël ko jox kooku di son sallallahu alayhi wa sallam bi mu ko sàkkee ba wàcce ko it def aw xeetam muy xayru ummatin uxrijat linnaas xeet bi gën muy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam tànnal ko ci biir aw xeetam loo xam ne nit daana jàmm ñetti téeméeri at ndax guddug seen fan wala nit daan jàmm at yu bari mu tànnal kooku yonentam weeru koor tànnal ko ci biir weeru guddi gu ñu tudde laylatul xadr nga xam ne xayru min alf loolu lépp mu jox ko Moustapha sallallahu alayhi wa sallam kon day tegtale fonk ko yàlla fonk bëgg ko bëgg defal ko promotion ci mépp mbir waggar ko ci mépp mbir bëgg ko ci mépp mbir ba noppi nag def ko jagle defal ko jagle yoo xam ne nii li sëñ Tuubaa di wax ne lahu min al xawaariq maa lam yajli saabiq yonent bi alayhi salaam la yàlla defal loo xam ne ñu jiitu woon amuñu ko ñii ñëw ginnaawam duñ am muhammadun mithaaluhu lam yaati fii ma mada wa abadan laa yaati kon et jamono yi am sëñ Tuubaa ne ku mel ne yonent bi mës la am waaye nag ndax ndax mës am fa yam mu ne déedéet waaye wa abadan laa yaati duutu dellu seeti ba faw ku mel ne yonent bi alayhi salaam nga xam ne kon yonent bi alayhi salaatu salaam suñu borom moo ko tànnal boppam xajal ko moom yónni ko nag bi ngi koy yónni mu yónni ko ci xeet wu yéeme mm-hmm. muy almujtama al arabi mm-hmm. xeet woo xam ne wu suufe la woon mm-hmm. wu ñu xeeboon la woon nga xam ne sax bañ na ko ba ñoom ay way réer la ñu leen jàppe woon ndax ñàkk xam suñu borom tànn ne kiy gën ci mbindeef yi maa ngi koy wàccee ci xeetu arab kenn foogu ko woon nga xam ne yàlla teraal na ko teraanga ju toll ni at mi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di gane jamono kenn judduwul doon jigéen nga xam ne lu judd yu góor loolu Cheikh Moussa Ka di wax nga xam ne at mi mu feeñee lu judd rek ci at moomu góor lay doon waaye jigéen ganewul jamono ci at moomu yonent bi alayhi salaam bi ko suñ boroom wàccee teel a nit ñi ci melo bi mu nekkee ci wàccaayu ñëw àdduna ni ko yàlla préparé nga xam ne way juróomu góor Seyduna Abdullahi génn na àdduna jëkk yonent bi feeñ mu wàcc ci xeetu néew doole alimatu saxdi ya nàmpal ko yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu amee juróom benni at way juróomu jigéen génn adduna muy Amina ñu jox ko maamam Abdul Muttalib hmm. mu génn àdduna ñu jox ko Abu Talib muy bàyyi taxam yonent bi salaahu salaam ci meloom xoola at mi mu feeñ jamono ñu koy wax amul fiil xoola li ci xew. Hmm. ci Abrahama nga xam ne dafa tabaxoon benn kanisa. Hmm. ca Sanaa bëggoon a ñëw mabbu Kaaba gi ngir nit ñi di def seen seen i nekk pèlerinage yoo xam seen i pèlerinage dañ dañ koy dañuy au lieu que léegi ñu jëmati ca Makka. dañuy wuti Sanaa. moom Abraham moom xoolal la borom bi wax alam tara kayfa faala rabbuka bi ashaabil fiil kon day mel ni yàlla bi muy préparé la Seydina Abdul Mutalib waxoon rek néeg bi am na borom bu koy aar mu teel a tudd al amin moom Mustafa sallallahu alayhi wa te boobu ci biir biiri bokkam la nekk ba bi ñuy yeesalaat kaaba gi di ko tegaat moom la ñu doyloo woon ci mu te xeer wi ku am sa am sa alal ci makka yonent bi nga koy dénk te boobu wooteegut nga xam ne al amin la ñu ko doon wooyee ak amin moom moo jiitu ak nubu waaw maanaam ak wooteem risaala bi même ñi bokkoon ak moom gis nga abou talib abou bi nga xam ne aw saara ma ngi ci alquran tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna anhu ma kasab sa yasla naaran saata lahab altane ju jot dañuy tegg mbugal mi ci kaw ndax bis bi yonent bi ganee jamono dafa bég ba boyal ab jaam goreel ko ndax bég ci yonent bi alayhi salatu salaam nga xam ne loolu altine ju jot mbugal mi nekk ci kawam dañ koy teggi ngir boyal googu goreel geegu mu goreel loolu kon ko ku yàlla waajal la koo xam ne ku yàlla préparé la koo xam ne daf koo tànnal ay meloom nga xam ne ay meloom kenn mësu ne mel nga xam ne ci lewet ci baax li sëñ Tuubaa wax ci ra yi rek na nga xam ne loolu mën nañoo tëj ba bunt nga xam ne lahu min al xelmi maa lam yaxwihi jabalun laaxal asa fil baraya waxu sabaaru sëñ Tuubaa na yonent bi muñam ak dalam moo raw aw doj aw doj boo koy toj wala nga koy déplacé du wax dara mu ne dégg ji muy def degg rasulullah ko gën a def degg laa xal asa fil bara yow ko sa baar xoole lim daj ci ay noonam waaye téewul xoole ni mën a muñi waaye borom bi tagg ko fu ne ci alquraanul karim waaye tagg ko ci wa innaka la ala xuluqin azim jikko yu mat yaag yu baax ya daal mi ngi ci yow Mustafa sallallahu alayhi wa